ñaari xale yaa ngi noonu ci digg géew bi Tapha Ndiane Ndiack Médecin Tapha Ndiane moo ñu féete à gauche Ndiack Médecin moo ñu féete a ngi dox ci kaw Ndiack Médecin Tapha Ndiane lewato bi baax na Tapha cokkaas na léegi Ndiack daw waaw waaw rësëgin Tapha Ndiane Ndiack Médecin Tapha Ndiane a ngi ci kaw Ndiak Tapha Ndiane xàcc na léegi daw na jël ko Tapha Ndiane jël na ko plaqué na ko Ndiak jàpp na ñoo ngay xeex Tapha Ndiane door na daw na ko ramassé génn nañu eh waaw waaw dama bëgg lii Tapha Ndiane Ndiak may dem na ardo Ndiak doo bëre wala boog Ndiak Ndiak day dem ardo abit xoolal kii. arbitre mënoon mënul bëre écart ba teppeeku na day dem ardo arbitre da koy bàyyi mu bëre dafa njaan njaan may kii kay bëri baaxul dafa njaan njaan may see non arbitre na lii waaw waaw na bi na dafa waaw xanaa gisoo ardo bi ñuy wax nag dem na dem na ardo ba dafa njaan Ndiak magicien dafa njaan Tapha jaan Niang Maysin Tapha Ndiang Niang Maysin Tapha Ndiang a ngi ci kawam Tapha Ndiang ñoo ngay xeex Tapha Ndiang nga koy doo ramassé na ko nu koy def da koy daan wala daanagu ko génn saako ya doy Tafa Ndiane yaa ngi bay see Tafa Ndiane moo ñu féete à gauche Ndiak Mbaye Sène moo ñu féete à droite dooraat na ko waa Ndiak ana sa garde doon na ko ba na ko doomu daanu Tafa Ndiane Ndiak Mbaye Sène xale yi nañu jàngiwaat xeex xale yi nañu jàngiwaat xeex Ndiak gardam bi. Tapha Ndiaye ñaag may dina ko gaañ dina ko gaañ dina ko gaañ dina ko gaañ dina ko gaañ Tapha Ndiaye ñaag may see waa Ndiaye ana garde xanaa ki gardam da koo ka daw na jël ko da koy daan Tapha Ndiaye ñaag may see Tapha Ndiaye léegi. Tapha Ndiane Niang Maïssin Tapha Ndiane door na léegi wala boog Niang door na Tapha Ndiane Niang a ngay xeex Tapha ngay xeex boog Tapha da koo bëgg a door génne moo ngay door fayu rëpp na daanu na Niang daanu na Niang xeex ba tegoo ko ci yoon Niang daanu na moo door moo daanu Niang yaa door yaa daanu.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 teg ay stratégie man du ma mbër mu ñuy tegal stratégie. waaw ba bës kon ba bës ba. na ko def ci boppam waxuma une minute waxuma trente minutes waxuma trente secondes li ma waxoon laay waxaat. foofu laa jëm ak yow ci trente secondes yi naa la xaar. boo ñëwul ma fekk la trente secondes. mu koy neex mu koy naqari ñu xeex di nàcc di dem ànd di ñëw ba keroog jël di am.